mi nga xamante ni ni ki démb moo doon défendre li nga xam ne mooy boobale kot daat nay wax ne mbiri Karim Wade ak mbiri Khalifa loole du samay compétence te réew mi dafa am noo xam ne moom lay doxee yéen a kaay gi ñu xëy fekk fa Toussaint Manga nee na en tout cas li am ba des sall mooy élection 2024 du am ci réewum Sénégal su dee du ci bokk su dee Khalifa du ci bokk Cheikh Abdou Bara Dolly ne en tout cas Macky ji ci ay njuuj njaaj yu ki nga xam mooy Makhtar Diop yow du ma am lenn loo xam ne dinaa ko wax ak yow ndax fii nga nekk lekkandoo ak Léopold Sédar Senghor lekkandoo nga ak Abdou Diouf lekkandoo nga ak Abdoulaye Wade lekkandoo nga ak Macky Sall ba tey ci biir journal bi Woré Sarr niki démb daan na yekk musiba ak mbelengaan ki nga xam ne mooy Félix Antoine Diome nee na ko nag jamono ji daa di ngay teeree si nag ci cour des malfaiteurs yow lu ñaaw loo xamante ni rek moom la ñuy def ci réew mi yow la ñu koy def loo yéen kaay gi di waa Grand Place ñu fekk fa Serigne Mansour Sy nee na nag Macky Sall jamono ji géwal bu repp la ci ab xare ndax géwal bu reppee ci ab xare lu mu jiin xepp yéen kaay gi du l'observateur xëy duñu xibara naan ñu coronavirus beek ñetteelu vague bi nga xam ne jamono jii ma ngi ci réewum Sénégal gis nañ ne état bu Sénégal dañ ne pata pataaral noppi ci mbir mi waaye nag état bi jamono ji amutuñu kàddu ndax ñoom la nga xam ne moom la ñuy wax ak la ñuy jëf dafa daal di méngoowu la ndax ñoom fii la ñu coronavirus bi ne cobbee ci réew mi ñuy wër di def seeni tournée moo tax jamono ji état bu Sénégal dafa noppi ndax munta yey kenn yéen kaay gi di di xëy nga xamante ni ni ki démb nag bus tata yi doon nañu ko def waaye nag askan wi dund nañu ay jafe-jafe yu métte métte ndax ni ki démb am na taximaan yoo xam ne prix bi dañu ko yokk fu nit doon demee sept cent cinquante ñu def ko quatre mille francs yéene kaay gi xëy duñu xibaar naa ñu ni ki démb ca chambre criminelle am na ku ñu fa doon àtte koo xam ne la mu def mooy dafa rendi waajuram wu góor woo xam ne ay atam tolloon na si juróom ñetti fukki at ngir nag cinquante francs gi nee na loolee lu doy waar la journal bii di Walf Fadjri ak réew mi nee na njiitu réew mi di président Macky Sall daan inauguré avion bu bees nga xamante ni coow li ci loola Macky Sall Nouakchott la dem nee ma Mauritanie yéen a kaay la Soleil nee na Macky li ko yóbbu Mauritanie maanaam visite d'amitié daan na fay signé nag lu toll si juróom-ñaar ci ay accord de coopération yéen a kaay gi de la Tribune ñu xëy fekk fa Khalifa Sall muy andi ay leeral nee du gloria waaye tamit nay leeral ana lan moo tax wërta mën a ànd ak Macky ci lu jëm ci wàllum politique a ji avocat yi Ousmane Sonko dinañu dem fi nga xam ne mooy cour d'appel bu Ndakaaru ndax na dañoo saisiroon chambre d'accusation ba yéen kay gi du l'Observateur xëy duñu xibaar naan ñu Wally Seck deltu na ginnaaw ci plainte bi nga xam ne am na ñum ko plainte ñi nga xam ne ñoo ko doon jiiñ wàllum góor jigéen Wally Seck daan na deltu ginnaaw daan na retiré ba la xam ne nag moo ko waral bokk na ci ay médiation ay médiation yoo xam ne ñu bari daan na ñu ko si def am na nekk Touba boo xam ne wax na ko na ko Wally Seck retiré plainte bi